alaykum mbokki internet yi nga xamanteni ñoy sa ko ah. suñu plateforme bi di Lambaye Info TV ah. tay ah. ñu ngi fi ci mbadian Thiada ci bis bi nga xamanteni ni lañuy def muy sante Serigne salew ñu and ci ak yeen tay ji nak ñu ngi fi ci ñu xamne ni bis bi ko tuddé Baye malik badian dekk fe ci Guy dali lepp rek ngir rafetal ak bopp mu yebal doomu mi delegation yépp ñu ngi ni ak rakam waaw Ibra Badiane waaw Ibra Badiane waaw bu ko defee xam naa ne bu suñu yaatu mi bu présenté woo dina leeral nga xamante ni ñoo ñoo ànd ak moom ci délégation naka ngeen gisee bis bi nga xamante ni moom lañ leen tudde asalaamaaleykum wa rahmatullah may nuyu ñëpp kenn ku ne sant di nuyu waa Mbadiane nuyu waa Thiada di nuyu waa Guy Daly di nuyu ñëpp dëkk yi ko yëpp di leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu waa Lambaye TV yéen tamit Lambaye Info TV ñu di nuyu bu baax a baax di leen gërëm di leen jaajëfal ci invitation bi wax dëgg naka ngeen gisee gisee bis bi ñu jël dipee leen ko tuddee ko seen waajur ban ban ban ngeen ceeb ak waaw xanaa mbégte rek mbégte mu rëy ndax ñu jël euh, lu mel nii sa waajur wala lu mel ni sa wala lu mel ni sa wala lu mel ni daal maanaam eh, du bokk ci yow jël ko ne la yow lañ darajale bis bii loolu dara gënu koo foor yàlla moo tax ñu leen di sant bu baax di leen ñaanal bu baax te di leen xamal ne ne waa guy daal ñu ngi leen di gërëm di leen sant te kontaan nañ bu baax ci darajal bi leen darajale Baye Malick Badiane di suñu waajur di bay ci ñi di mag ci ñe ndax ki ni tok rakama ño bok ndey ak bay di ibra gaso ñi ñi suñu wajur la kini doomam ki ni tamit di mam gur bajaan it waajur la ci mom donc xam nga ne sorti ci ak def ci la wax deug yalla ñu ngi sant wa bajaan bu baax te di leen xamal ne ne bay malik bajaan mu ngi ci lu bu baax te di ci kontan, manam mm. ay Eh, dafa xawa a jaga di tuuti rek mhm. <laughs> waaw mais mu ngi sante bu baax mais bu ro loolu mom mhm. ci bopam mo doon ñewoon bopam mhm. waye mu ngi sante bu baax te di di len ñaanal ñom nit yalla may len euh ñu mën koo def diko defati diko def ba mu mat presque 100 ans wala 111 ans ñun ñëpp ñu fekke kenn baña a ci bak seigne touba te ki ki ñuy sante di seigne saliw momi di boromi xewal yàlla may nu Euh, xéwal yu ñu ko mën a di sant chaque année wax dëgg fa yàlla waa kër Baye Malick ak waa kër Samba Awa Badiane di ci jiital magam bii di Amadou Sylla Badiane mu nga Touba ndax mooy magam mooy suñu kilifa ñun ñëpp donc moom la ñuy jiital te di leen xamal ne wax dëgg fa yàlla kontaan nañ bu baax ci darajal lu ñu ko darajale wa ñu gis ne li ni manam bop na ci lo xamanteni lu dund la mbokk la ndax yaakar na mbajaan ak dali mom da naka fenn gën ci sa morom. ben la. Mhm. mbajaan bu ne mbajaan ne guuy dali ne ciad ne keur bara mhm. ben la wax deug yalla mbajaan nak ndax euh, bo euh, guuy dali ñi dekk guuy dali fi ci mbajaan lañu soso rek ben la ño bok ben mam donc buñu jëlé euh, lepp indi ko it guuy dali dafa melni mbajaan a guuy dali guuy dali benn la rek waaw yàlla kon yéen a ko dégg nañ yéen mbokki internet yi dégg ngeen euh, ni nga xamante ni noonu la délégation bi bay Malick yebal li ñu wax muy loo xamante ni day dundal ak kenn ku ci nekk war cee roy ndax bokk nag alalu yàlla la yàlla moo ne ko jokk mu jokk la waaye ku ko dagg mu dagg la mhm. kon nag lii nii kenn ku ci nekk mën na cee jàngatee ba gën di rafetal mbokk gi ndax àdduna moom mhm. dara amul solo nag xam naa ne kon sa kàddu yu rek bu defee mooy kàddu sant rek mooy li ma ubbee woon rek sant wax dëgg yàlla amuñ seen fay di ñaanal ñëpp jàmm te di ko sàkk ci ñoom te yàlla may nu bu ne mu gën a neex incha allah rabbi di la ñaanal yéen tamit wax dëgg yàlla ngeen uh, yokk yokk ba yëpp ko ndax lii dafa am solo ndax uh, da ngeen ñëw pour jëmmal bis bi ñu di ñaanal yéen tamit wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yéen bu baax a baax di kontaan ci waa Mbadiane dëgg yàlla xale yi jàmbaar lañ te macha allah rabbi daal waaw ñu ngi leen di ñaanal ñun ñëpp di ñaanal ñëpp barke